di nuyu ñëpp ñi nga xam ne fii ci Teka wax dëgg heure buñ fi duggee ñu dalal ñu ñu waxtaan ci jàmm mais aussi waxtaan ci ay pexe yoo xam ne mooy suqali dëkk bu mel nii. Euh, fii nag ci Teka euh, damay dalal xelu nit ñi ne leen euh, duñ fi géej. fii suñu gox la duñ fiy géej ndaxte nag dañ fi am ay nit am fi ay wallare loolu yaakaar naa Fat Faye mën na ko seede Awa Seen na ko seede Ramatulaay Aydar mën na ko seede soxna maam ware waxa noppi di nuyu aussi te di encourager suñu rakk yi nga xam ne ñu ngi liggéey bu baax ci gox bi mel ni Ousmane Ciss di leen xamal ne liggéey bi ngeen di def liggéeyu dëkk bi la liggéey boo xam ne la dafay soxali dëkk bi te soxali dëkk bi wax nañ ko benn mooy jàppale mool yi jàppale boobu ba léegi ci la ñu jàppale mool yi boobu ba léegi mooy suñu mbébét moom lañuy jëfe jëfee saa su nekk bërki démb lañu commencé di partager ben financement du xamné crédit mutuel du Sénégal moñu gal financement bu 60 millions 60 millions yoyu. képp koo xam yaa ngi ci dëkk bi yor groupement bo ci jotul tamit da nga ci jot barki Dembo ndjay tamit lañu Nous DER andil ben financement bu 10 millions L'ol tamit nekk ci yoon bi pare gu ñu ñu jot beneen financement boo xam ne mool yi ñoo ko moom mool yi ñoo ko moom financement boo xam ne balaa janvier bi di jeex incha allah mool yi dinañ ci jot te mool yooyu nag dañ ci jiital waa Teka li ma leen waxoon ne leen dañu jóg pour liggéey leen dañu jóg pour jàppale leen parce yéen suñuy rax ngeen suñuy frère ngeen suñuy njaboot ngeen suñuy lépp ngeen yéen lañu ñu war a taxaw d'abord te taxaw boobu danañ ko def ba mu mën sëkk ndax xam nañ ne fiñ koy defee ak liñ ko war a defee njëriñ rek lay jur géej bi ñëpp xam nañ jafe-jafe yi xam na ne jafe-jafe yi tey ñi ko mën a soxali mooy doomu dëkk bi ñun nag dañ fi taxaw en tant doomu dëkk bi dañ fi taxaw en tant que responsable dañ fi taxaw tamit en tant que kilifa boo xam ne da nga bokk ñëpp njaboote loolu lañ ñu tàggate te loolu la ñuy doxee ma di leen xamal ne bés ndikit kay képp kuy moolu Tekka wala mareyeur financement bi nga xam ne dañ leen koy jox boole nañ la ci bu leen xaar ñu woo leen bu leen ne diw moo ko jiite rek xale la diw boobu dañ ko jiite parce que yàlla ko def tey mais financement bi ñëpp ci bokk xool xooluñ ci ci xàjj ak sedd luñ ciy xool mooy nan lay jëriñe njaboot yi nan la mool di fexe tey ba bu amee jafe-jafe ci wàllu engrais de pêche mu am fu mu koy fajee bu amee jafe-jafe ci wàllu filet de pêche mu mën a am ay pexe bu gaalam yàkkoo ñu mën koo defar dama jot na ñu suxali mool yi dafa jot ndaxte suñu maam yi ni ñu daan liggéey ci géej bi ba léegi moom la waa dëkk bi di liggéeyee loolu nag dafa jot ñu daxal ko jot na dëkk bi am quai de képp koo xam ne ba ngaa am foo taxaw nga taxaw fa quai de dafa jot mu am fi te quai de pêche amul benn dëkk bu ko gën a yelloo di Ndayane bi loolu jotewul dara ak port port bii ngeen gis président de la république posé première pierre bu yàggul dara te liggéey bi gars yi nekkagum ci noonu lañu ñu mbébétee quai pêche bi te incha allah dinañ ko fi taxawal. loolu nag dafay fekk ñu dooleel bu baax suñu mool yi moo tax ñu wutal leen benn programme spécial te programme boobu danañ ko teg ci ay loxo yu wóor ci ay kilifa dëkk bi ba nga xam ne képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi wara jot ci financement bi dañ ci jot te ñu bàyyi ñu ñuy xàjjale mool yëpp benn lañu géej gi benn la kenn mënu koo xarñaar donc mooy dañu war nekk benn dama bëgg nag suñuy responsable xam naa sax noonu la ñuy jëfee mais ñu gën koo jëfee financement yi képp ku leen sollicité nekk mool ci dëkk bi rawatina fii ci Tayka bool leen ci financement yi bokkul dara ak li nga xam ne mu ngi ñëw te agsi na incha allah di leen xamal ne it am na loo xam ne bëgg nañ ko lool ci dëkk bi. maanaam ñuy fexe ba nit ñi di xam li xew xam li xew wàññul ci ngóoruwaay dara dafay gën a mën a tax sax nit ñi ubbeeku xam ne booy gérer lu toll ni commune da ngay diisoog nit ñi booy jël yenn décision yi nga pencoo ak nit ñi nga diisoo ak ñi nga xam ne ñoom nga ko war a jagleel moo tax ñun boobu ba léegi lépp lu ñuy def dañuy woo ñi nga xam ne ñoom lañ ko jagleel ñu teew bu dee mool yi ñu woo leen ñu ñëw waxtaan waxtaan nañu fu nakk nag waxtaan nañ ci taasaar bi waxtaan nañu HLM waxtaan Teka waxtaan Popenguine waxtaan Popenguine fépp waxtaan nañ fa ñoom yaakaar naa réeroowuñ ci dara. bi ci des mooy ci wàllu jàmm ci biir dëkk bi dëkk bu jàmm amul développement mënu fa am moo tax ñiy woote jàmm ci dëkk bi ak ci doxaleen yi. doxalinu jàmm jëfu jàmm mais it waxtaanu jàmm te lii ku ko xool nga dégg suñu lingeer yi ak suñu jigéen jàmbar ni ñuy woowee nga xam ne ñiy jàmm leen tax a jóg te jàmm jooju yàlla na sax fii ci Tekka fii nag dafa nekk quartier boo xam ne ñun dañ koo fonk fonk nañ ko fonk nañu kàddu mag yi bàyyi nañu xel bu baax aussi jigéenu Tekka te danañ leen taxawu ba seen coono wàññeeku danañ leen taxawu taxaw seen njaboot ndax loolu moo ñu war danañ taxaw xale yi taxaw mag ñi ñi nga xam ne it tey seen wërgu yaram demewul noonu danañ leen taxawu dina leen taxaw ci bépp fànn di leen xamal ne lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum coalition ëllëg Sénégal lépp loo xam ne coalition ëllëg Sénégal daf ko mbébét tey ci biir dëkk bi njëriñu dëkk bi kese la donc na ci ñëpp jàpp coalition bi coalition commune Popenguine Ndayane la du for Charles VI rek wala Mame Waré Faye déedéet commune Popenguine ndayan tay bo xolé liste coalition ëllëg Sénégal dañ ci gis ñep dañ ci gis mak dañ ci gis ndaw dañ ci gis dañ ci gis dal agep yëpp dañ ci gis agep donc fexe lan ba bu boobaa le 23 janvier yagatul ngeen xam ne coalition ëllëg Sénégal bi nga xam ne gaal bi mooy màndarga bi te ñu koy woy saa su nekk gaal boobu mooy Popenguine Ndayane gaal boobu mooy avenir Popenguine Ndayane gaal boobu mooy passeportu ëllëg Sénégal pour développer Popenguine ndayaan gaal boobu yaakaar naa mooy gaalu dëkk bi gaal boobu mooy aveniru dëkk bi fexe leen ba bu leen ci jóom nit sax mënu ci jóom yaakaar naa ku gis bulletin gaal gi bulletin gaal gi nga xam ne bulletin bi mooy avenir xale yi mooy avenir jigéen ñi